waaw fii dañu fi ñëwoon pour def euh, couverture médicale ci ubbite jumaa ji ñu amoon yéene def ko ñaari fan ci alxames bi ak ajuma ji dañuy ñëw pour euh, faj ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk parce que fépp fu nga xamante ne nit ñi dañ fay daje mën na am ñu feebar mën na am urgence mën na am ñu nga xamante ne dinañ soxla ay fajkat loolu moom moo fi suñu taxawaay pour ñu ñëw jàppalanteeg ñi nga xamante ne ñoom ñoo fiy ñëw di ay pèlerin ci ubbite jumaa ji waaw indaale nañ ay garab yu bare indaale nañ ay garab indi nañ ay garabu xale indi nañu ay vitamine C parce que dinañ seetlu ne nit ñi dañ fiy sonn dinañ indi nañu garab pour faj yaram bu tàng indi nañ garab yu bare lépp lu nga xamante ni même koo xamante ni dafay présenter crise d'asthme indi nañ appareil nébuliseur pour que ñu mën koo taxawu ci yi nga xamante ne moom mooy ay tolof tolof. ñu am habitude di def couverture médical ci màggalu Touba ñu koy def ci 7 points. donc lu ëpp juróomi at a ngi nii ñu di ko taxawal chaque année dañuy dem màggalu Touba def couverture médicale donc suñu yéene moo doon ñu am fii nii ñu nekk nii ñaari fan mais loo gis rek dafay am kilifa kilifa bi nga xamante ne moom moo jiitee liggéey bi nii di liggéeyu santé dem nañ ci moom léegi ba gis ko moom moo ñaan à ce ñu ñëw bootu ci ginnaawam boo seetloo léegi dinañ dem bootu ci ginnaaw parce que li ñuy wax murit ndigal ndigal rek la ñuy wéyee te ndigal bi mooy ñii jiitu ñi topp seen ginnaaw